salaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk si turam ak santam comme ni mu ko waxee rek yaakaar naa ne président Abdoulaye Dièye ak coalition citoyenne dañu jàkkaarloo ak ñaari grande coalition benn bi di Mburok soow Idriss Seck ak Diattara nga xam ne dañoo yàq dëkk bi ak waa Mburok Sow waa Thiès sànni leen fële ci àll ba dal di jël Abdoulaye Dièye teg ko ci kanam mu am nag coalition Yewwi Askan Wi kii wax na ko léegi ñun Thiès

ay vingt cinq trente personnes tëj leen ci ay bureau ñuy voté ba une heure du matin jot ba yenn PV kenn renseigné wu ko donc yeeyu askan bi ñu xamal leen seen i njublaan seen i tappale feeñ na ñooyu yéen nag ñoo dëkk Thiès

ay nit nga ci ay bureau ñuy def ay ay bourrage des urnes loolu du jàll Babacar Diop moo wax ne bu ñu supprimer wul R100 bu ñu ko euh, euh, annulé pour pourquoi mu koy wax moo ko wax fii ci benn rajo donc xam na ne dafa njublan dafa tappale xel xalaatul waa Thiès xam lu ñuy xaar Abdoulaye Dièye maire de la

pare nañu ci côté yëpp lu mu leen jaral ñoom ñi sàcc ñun ñi moom yëpp yi Ceesuwaay yi fal ñu dénk ñu ko jaral nañu ko ndax yàlla dénk na ko ay moyens yàlla dénk na ko xam-xam également dénk na ko relation waaye boo xam ne sa relation rombul table commune bi ngay xaaraat ñu jox la sunu mairie de la bi yow dañ ko nangu maîtriser dëkk bi kees mën a jëm ca kanam loolu nag duñ ko xam préparer suñu programme ak suñu mise en œuvre ñu ngi koy préparer bi li ñuy xaal mooy ñu ñu proclamer les ñu tàmbalee liggéey mais incha allah Ousmane Diagne na ko leer ne du toog ci mairie est. waaw na ko wax ku fi yëngu ñu duma la ba yeew la comme ñoom dañuy yeew rek am na population yi ànd ak sérénité ànd ak dal. ndax nag bu Ablaye Dieye wootee ah Thiès yëppay jóg de ndax Thiès yëpp ko ko def ndax kilifa yi li ñuy xaar moy kañ la Ablaye di toog te mairie jàkka yi loolu la ñuy wax imam yi ulama yi notable yi personnalité yi hôpitaux yi waa Thiès yëpp de manière générale dans leur écrasante majorité li ñuy xaar moy kañ la ñuy installé Ablaye